gënoon a jaxase ak moom 1993 la miin Serigne Mansour boobu la sama doom bii di door a juddu ki juddu nii Tiwaawoon muy Maymuna mu nga na la di sëy Tiwaawoon it boobu la miin sëriñ Mansour buñ mosaan ba mu mosaan dem ci Cheikhul xaj Abdou Aziz ci kër Seydul Hadj Malick ziyaare ko ba noppi su ma génnee damay dem ci moom ziyaare ko. su ma mosaan dem jagsaaw it ziyaare góor gi bu ma jógee jagsaaw damay jaar ci moom noonu laa mos di def loolu def naa ko ay at def naa ko 93 94 95 Aminatu mii ci kër gi dooru judd yàlla def yi ci mujj yëpp nag maak sëriñ Mansour maak euh, Sidi Maxtaar Kunta sëñ Sidi Maxtaar Kunta bu Alaaji Malik Jóob mii ak sëriñ Souleymane sekk bi leen fekkoon ca pose première pierre bi bu cene ba bu bàyyi alaaji Jibi sekk bu cene ba ñoo daan ànd di dem di ziyaara ji sëñ Mansour 93 94 ba 95 mosuñ ko tëbal heure buñ demee ci sëñ Abdou alaaji Abdou Aziz ziyaare ko dem ci sëriñ Mansour ziyaare ko door a dem kër sëriñ Cheikh ci soxna Kiné fa lañ daan reeree guddi lañ ko daan ziyaara nag soxna Kiné bii moom la sëriñ Mansour Sarr di denc Mansour Sarr bu sëñ Muniru Sarr bu bii bu boodi mooy denc soxna ki ne di magu sëriñ Moustapha responsable moral Moustafchidina wala Moustafchidaat fa lañ daan reere mu di ñu defaral ganaar yu neex saaf bu wow koŋ ci saalu sëriñ Cheikh wax dëgg yàlla soxna ki ne na ko yàlla fay waaw yooyu duma ko fàtte mukk ndax boobu ganaar yombut waaw léegi la ganaar yomb rek ndax poulet yi <laughs> di paye poulet yi rek waaye boobu poulet di paye am waaw wax dëgg yàlla li may wax kañ laa jël sëñ Souleymane Seck wala sëñ sëñ Sidi Makhtar Kounta waaw saalu sëriñ Cheikh boobu lañ daan reere lu ne bu ñu lalee napp bi dangay foog ne Tiwaawan lañ ko nalal lalal lu ne la ñuy indi loolu def nañ ko trois ans yoo xam ne foofu la ñuy reere ci soxna Kimi buñ fa jógee dem ci sëñ Mansour borom daara ji waaye li taxoon nag saa yi ñu fa demoon rek dëgg la de man de dama daan ziyaare ji ngir yàlla waaye xam naa ne sii di Kunta moom yàlla yóbbuwu ko <laughs> ndax heure buñ demee buñ ñibbisee moom mën nañu bañ a génn ay fan daf ñuy jox lu bari nag lu am doole ci tabe gi ba maa ngi fàttaliku bés am na bés ñu jógee eh, Tivaouane boobu sëñ Souleymane sekk bi moo yor R18 break bu vert moom la sëñ Souleymane Seck yoroon boobu ñu jógee cene ba jaar cees jël Sidi Kunta ñëw ba fili fili ñu jàdd ci naar bi balaa ñuy dem fili fili ci àllum kaañ bi noonu ñu seen oto sëñ Mansour di ñëw ma ne leen sëñ Mansour la sëñ Souleymane sekk moo génnee loxoom ne ko sëñ bi ñu ngi ziyaaru te boobu sëñ Souleymane ay dawal nii rek la ko def sëñ bi ñu ngi ziyaaru def nii ndekete sëñ Mansour nee na bi taxawal taxawal taxawal mu taxaw el ba sëñ moom sëñ Souleymane ne i sëriñ bi dafa taxaw de ma ne ko kon defal marche arrière mu def marche arrière ba ñaari oto yi jàkkaarlu mu ne wàcc leen ñu wàcc ñëw nuyu ko mu ne ma Chérif fu fu ngeen jëm ñu ne ko Dakar mu ne da ngeen doon yi da ngeen di yelwaan yi de waaye këpp naa seen yelwaan acca acca acca ñëw leen dal di génne li woon ci poos yëpp ne xaaral ma man yelwaani naa bay ñëw xoolal ci wooy ofam waaw xaaral ma may leen ndax ngeen ndax ngeen am lu bari dal di génnee poos yi jox ñu sëriñ Mansour a ngoog ci woyafam xoola ko toll ni sëñ Mansour ñun ñu tax mu taxaw génnee li ci poosam jox ñu nit ñu dangeen di di yalwaani rek man dem naa ba ñëw acca yal na barkeel ci woyaf ci mbaax sëriñ Mansour xamut lu dul jàng ak jàngale ak bey jàmm gën la daan béyee ay tool ca jamono yooyu béy rekk ak jàngale béy jàngale mbéy rek la xamoon yàlla ubbi ko ci mbéy nag ubbi ko ci waaye ubbiwaale ko ci fatxu muy wilaaya xamoo mbéy day joxe wilaaya moo tax mag ñëpp daan béy waaw ah, uduxulu misra hmm? man naag salwa ba ca gaa yi sonnee lu ñu wax fadu o lana rabbaka déedéet yuxrij lana mimma tunbitul ard min baqliha wa qissaiha wa fuumiha wa adasiha wa basaliha qaala atastabdiluuna billazi adna lum ca teg ba aaya ba di jeex udxulu misra ihbitu ah du noonu waaw kañ kon mbéy day joxe fatxu moo tax ñiy béy ci àll bi boo demee ku mel ni Badara Diop kii xam Daawda xam na Badara gis nga secret bi ci suuf même boo demee tool ya te béyoo toog di xool mbéyteef mi rek beneen affaire la moo tax mag ñëpp daan béy sëñ Mansour dem bi am ci fatxu moom balaa moo nekk sëriñ di jàngale fekk na mu am wilaaya boppam booba ku dugg Tiwaawan boo gisul alaaji Abdul Aziz rek ci sëñ Mansour ngay jubali léeg-léeg sax ñu am na ñoo xam ne direct ci sëriñ Mansour la ñuy def parce que lañ bëgg moo ko mën <laughs> waaw duñ soxlawuñ sax alaaji moom balaa muy nekk xalifa fekk na mu am pouvoiru boppam pouvoiru boppam boobu mooy ban fekk na mu am ijaaba am xabul des années am ijaaba am xabul maanaam ñépp di ko fekk si ñépp di ko ittewoo te lum la ñaanal nga gis ko te wolof moom boo ko ñaanalee benn mu gis ko mu dem xëcc keneen indi rawati nag ci wàllu rab fekkee naa ba tey nit ñëw jag saaw wax ak alaaji abdul aziz ne ko nàngam ak nàngam ba yeggal mu ne ko demal seeti Mansour Serigne Mansour moo ci gën a ma moo ci gën a gaaw ba tey man mii am naa mbokk boo xam ne duma tudd turam sama doomu ndey la bu dofoon ma yóbbu ko ci Cheikhul Hadj Abdou lu ma yóbbu leen ko ci Serigne Mansour bañ fa demee defuñ fa 15 minutes mu wér bari na lu nit daan ñëw ci Cheikhul Hadj daf la naan demal ci Serigne Mansour kon ku teel a am may la. ku teel a am pouvoiru boppam la ci barke baayam sëriñ Babacar Si sëñ Mansour noonu la nekkee di bay di dunde di dimbale taalibe yi xam-xam yemalewu ko dara bu xesee toog ci daara ji di jàngale dara ji joo mën a am ci kaw suuf boo ñëwee sëñ Mansour du wax ak yow fekk jàngalewut ba noppi moo lay won ne yemelewuloon xam-xam ak dara luñ ciy déggee ku toll ci jàng jàngal ngir yàlla ku toll ci jàng jàngal réew ñaar rekk a ko yor xam-xam xam-xam éducation ak santé yi ci des yépp dugg te santé ku amul xam-xam doo ci nekk kon ku toll ci jàng rek jàngal sëñ Mansour xam-xam lu ne la ko jaraloon ci kaw suuf bu gisee ngay taalif day kontaan ci yow lu mu am nag jox la encouragé la téere bu mu xam ne la jëndi ko boo ko amul mu may la tool yi muy bay yépp ñëpp foogoon ne boppam la koy bayal la ca ëpp nit ñi la koy séddale loolu nag topp ko muy dem ba mbooro fu ne mu am fa tool nag fu ne daan na mujj di bay ay pomme orange euh, am na bés kabir kan bii ñu ànd dem seete ko balaa ji Usmaan kan sëñ Mansour naan ko sama sanaana ji ñor na man xaw ma luy sanaana ndeke mooy ananas <laughs> ñu génn kabir kan ne xoolal kii xamul sax lu xew sama sanaana ji ñor na ñor na lu ne la daan béy ananas lay wax mu ne ko sama ananas sanaana ji ñor na dafa bëggoon liggéey bëggoon liggéey bokkoon ci sëriñ si noonu yàcc di dundee àddiya bokk ci woon sëriñ si ne yàcc di dundee àddiya mësu ci bokk moom ñaq bay dunde jàngale yar jeex na mu gi nag mu dugg ci jënd ay kër yii mu di ko jënd pour boppam yii mu di ko jënd di ko maye li maye ci kër kenn xamut nu mu kenn xamul nu mu ñaar kañ la gënoon a aay kër ak jabar jamono yooyu ba bi may nekk fii yu bari perkal nit ñee ma ci génne yàlla def biñ dugg see kenn faalewuñu sëñ Souleymane sax lañ doon nuyu ndax moom moo niru sëriñ xam nga boobu am na tabaarakallaa boobu mu ngi am jëm def faasam yi comme bu jamil ah def faas yu o taaye ko ba mu rafet moom kañ bu ne tëll rek nga ne ko sëriñ bi nanga def ñun nag daanaka dang ñuy puus <laughs> eh, puusal fële ma ñëw nag benn waay puus ma jañ ma si toppal nii ma xaw a gis sama bopp nag xool ba gis benn ruq rek ne saa may ma mu may ma rek ma naa fi la ñaareel ma sànni kabar julli benn rakka bi faatiya xul yaa ayyuhal kaafiruun beneen bi faatiya xul huwa allahu ahad sëlman ne yàlla su fekkee ne sëriñ Mansour mii am na dara ci wilaaya te kashfam bii ñuy wax laa bëgg sax mu wax ma kashfu lan la fii ma toog nañu woo billaahi wal kitaabi bi sama kàddu di daaneel ak bi may dégg ana Chérif Ibrahima benn la ci loolu sama xol laa ko wax de sama xol sama làmmiñ génn bis bi may pare li may wax ak bi mu naan ana Chérif Ibrahima benn la ma jóg taxaw ne maa ngi mu ne wuyul sëriñ bi mu ngi ci biir boobu sëñ su lay duggagut ak sëñ Sidi ndax man rek lañ woo ma dugg fekk mu ngi summeeku ndeysaan ba toog ci kaw lal bi summi mbaxana meeg yépp dese benn bloc bu woyof mu ne ma shérif da ngay laajte ndax sama kasfu bi kasful ilaahi la wala seytaane la man sama bos kasful ilaahi la <laughs> wallaay nii la ma mu ne man sama kasfu kasful ilaahi la du seytaane de waaw ah. dal di ree tàpp ma ne ma fii mooy laboratoire dégg <laughs> waxtaan nag man lu yàgg ne ma koo àndal ma ne ko sëñ Souleymane Seck ak sëñ Sidi Maxtaar Konte mu ne ma wax leen ñu ñëw ndeysaan ñu woo leen ñu ñëw mu ne ma ah fekk ma su meeku te maye naa ba sonn dal di làmbal ñuqati la de woon ci poos yi yëpp jox ma ne sa àddiya maam xool am ay suukar yu desoon foofu mu ne ma jëlal yóbbaale ma ramassé kees yi paquet yi suukar ya fa newoon yëpp ay goros ya fa newoon Sidna Sidi Maxtaar jàppal ma jàpp sëñ Souleymane jàppal ñu dem ba yegg ci oto bi sëñ Souleymane sekk bii ne ma suukar yi moom jël leen yaag si di konte waaye xaalis bi moom indi noonu lañ sonnale woon sëñ Mansour ñun ñun ñett ba sëñ Souleymane sekk bii may wax moo ko may soxnaam si ñuy wax astu ñang ñu tuddee ko yaayam mu may ko ko moom am nañ doom ba doom ya sëy nañ ñi takk nañ jabar te loolu ba mu ko koy may ci sama kanam la kon li may wax daaw da xam naa ko mu may ko soxna su suñuy wax soxna astu ñang ba léegi mu ngi tiwaawan mook moom mook moo sëñ Suleymaan yàlla ngi leen boole kon ku amoon social la sëñ Mansour waaye ku ko ku ci daan dund la nag di ko dundal bu baax a baax a baax xam nga nit bëgg jabar tëkku nga may ko mos naa gis tamit fekk koo xam ne ndeysaan dañ ko may soxna mënu ca dara ranga ranga ranga rang biy bëgg dee sëñ Mansour jékki-jékki rek xool jiw te xam naa ne boobu yàllaa ko ko wax waaye kooku yaakaaru kaay kaay kaay kooku xuus mbooloo mi ñëw mu ne ko toogal mu toog rek sëñ Mansour di ko tër ci bopp ne ko demal bu guddee di nga mën dara ci soxna si <laughs> wallaahi <laughs> demal jógal jógal bu fi taxaw waaw ah, bu guddee di nga mën dara ci soxna si acca waa ji di génn mu jékki-jékki làmb poos bi ne dabal ma ko jox ko ne ko mu def ko dépense mu mu togg ci reer ah yii lim ci def kenn xamut nu mu toll waaw ah, da daan toog ci biir mbooloo mi xool kenn rek ne ko kaay exact la mu koy wax looloo am te boobu day fekk kooku di sikki sàkk ci ay mbiram mu woo ko won ko ne ko li ngay xalaat sax maa ngi koy dégg mu ngi may sonal daan na wax ne bu ma bu ma génnee ci saal bi ba toog ñii xalaat ñoo may gën a sonnal ñiy wax daan na wax ne bu ma génnee ci sama laboratoire bi néegam boobu mu tuddee laboratoire da labo te laboratoire pire la boo ko fa masaan fekk dangay xam ne fii laboratoire da koy cuuraay ba yow doo mën a noyyi yow façon cuuraay yi mu fa daan def yow doo bëgg a génn te di nga génn par la force ndax yow doo ko mën a adopté di saxaar si te moom fa lay nekk bàcc ba yaramam tàng bu génnee daanaka kenn du ko ñemee xool daf daan wax ne su ma génnee ba toog ñiy wax ñiy xalaat ci seen xol yi ñoo may gën a tànkal ñiy wax ndax la ñuy xalaat sax maa ngi koy xam maa ngi koy dégg kooku wilaayam kenn nattalewu ko yàlla def ba ci xaal boobu la nekk di orienté di jàngale di jubbale di jubbanti di dimbale ñim dimbale kenn xamut nuñ toll ci kaw suuf sëñ Mansour ñim dimbale kenn xamut nuñ toll waaw sax ma def ci yeewi ci nit ñi Drogba bii ngeen gis xam nga dangeen ngeen dégg sëñ Mansour a ko ñaanal ñaanalu ko ci football de daf daan wax ne duma ñaan ci lu xaraam télé sax sëñ Mansour bu ko mosaan taal maa ngi koy fàttaliku am na bés mu taal wal fajiri ni jàppal leen ma wal fajiri ñu jàpp gis muy musique bu ne lii lan la xanaa tuddut wal fajiri fenn fenn fenn pour te dire wan la ne Chérif toogal nii rek bul jéggi nit ñi sa maam daawul jéggi nit ñi sa maam daawul jéggi loo doon doon Chérif royal sa maam wala nga ne may leen ma waaye bul jéggeeti nit ñi royal sa maam bokk na ci li leen tardeel ñàkk roy seen maam maa la ko sañ wax nag te maa la koy wax bu leen jël daf leen di tardeel daf leen di tardeel ndax ñi nga jéggi fii xamoo ci koo xam ne waliyu la su la baalulut sa mbir du dox ak loo doon doon sutu yenant bi nga jéggi ko te muy waliyu moom sax mën na bañ a wax yàlla nangam yàlla bu la kese mbir ndax moom ah yàlla bëggul boo gisee Alaaji Abdou Aziz bañoon koy jéggi loolu la Serigne Mbaye Abdou nettali na ko yéen ñëpp ngeen dégg yónni na ko hàddiyee moom Alaaji Abdou Aziz fu sori jolof xam naa turi waa ji kooku jox ko lopp 2 million benn setu cheikh moo fi ñëwoon góor gi ne ko demal ci diw ne ko mu jox ko hàddiyee maamam sëñ Mbaye dem kooku jox ko ko mu ñëw fekk saal baa ngi fees te ko comme góor gi daf ko yàkkamti woon mu jéggi ba yegg si góor gi ne ko Babacar ñi nga jéggi lu tax mu ne koy ah li nga ma yónni woon rek te ma xam ne da ko yàkkamte mu ne ko téye ko ba yàlla jéggal ma ñi nga jéggi ba ni mu génn àddina sëriñ mbay ne maa ngi téye xaalis xaalis bi ay at ëpp na fukki at sëñ mbay ne maa ngi denc xaalis bi di ko déglu ba ni mu génn àddina ci ñum jéggi rek mu ne ko toogal ba yàlla xamal ma ne baal na ñi nga jéggi ndax man mu la yónni rek nga yàkkamti nañ ko wattandiku bu baax boo moo tax ci charia sax bu dee juma bëgguñ ngay jéggat nit ñi fa tabaarakallaahu kon euh, sëriñ Mansour euh, du ñaanalul Drogba en tant que football déedéet kii xam na ci dara ndax sëñ Mansour nettali na ko mu fekkee Mansour mi sëñ Mansour lañ ko tuddee sëñ Mansour it ku ko bëggoon la ku ko bëggoon la ci xàmmee ko it du turandoom rek nii waaye daf ko bëggoon ba pare mu xàmmee ko man xam naa ci dara yóbbante na ko ci man ba tey kon ana Sayid Géey mu ngi fi <laughs> sëñ Mansour daaw da nit ñi xamuñ ne daf ma bëggoon ba gëmeewuma yàlla billaahi wal kitaabi nit ñi dañ feebar man nit ñi lu leen dal laa xamul Sayid Gueye bu dee mu ngi fi laaj leen ko Sayid bu sëñ Mansour Mosaan ñëw fii golf yaa ngi fi waaw kañ taxawal mu ngi nii bu sëñ Mansour Mosaan ñëw golf jël ko moom mii lay wone ko kaay woyal ma falaa budda bu woyee ba daan mu ne ko demal woowal ma shérif laaj ko mu ngi nii fu mu nekk nga ne ko na ñëw wuyu ma dama ko soxla daaw da laaj ko ñaa Sayid ñëw fii ci kër gi rab rab rab rab ñëw kay wuyu Serigne Mansour ma ne ko fu ne mu ne ma mu ngi golf nee na nga ñëw wuyu ko léegi ma ne ko boo demee ne ko ñëwuma laaj ko mu ngi nii Sayid dafay jaaxle jaaxle yow ñëpp bëgg gis Sëñ Mansour ma ne ko boo demee ne ko nee na ñëwul ñetteelu yoon bi bi mu ko ko wax ma ne ko Sayid ne ko moom xam na man xam na ma ne ko xam nga lu tax. heure bu ma wooloo su ma ñëwee mu yëkkatee xaalis jox ma te xaalisam baaxul ci man xam naa ne xaalisam baaxul ci man te man du nangu ma jox ko te du ma nangu mu jox ma ndax li ma bëgg ci moom feek mu ngi may jox duma ko am kon ma toog bu nit ñi interpréter li may wax ne wuy jiwuma ko dafa am lu tax la tax mooy xam naa ne maa daama mu ngi may jox xaalis li ma bëgg ci moom ci yàlla duma ko am moom du ko wàññi dara waaye man lay wàññi man mi nga xam ne daf may wàññi nag may bañ waaye wax naa leen kañ gisee yi ma doon gisee moom ba mujj gi Lamine Sakho dem leen ngeen laaj ko imaam Lamine Sakho la mujj wax ne ko billaahi wal kitaabi su ma amoon juróom yu mel ni sama doom jooju Chérif Ibrahima dootuma jaar Dakar Lamine Sakho gi fii ca tool ya la ko woolu mu ñëw mu wax ko. imaam Lamine Sakho dem leen ngeen laaj ko mu ne ko billaahi imaam su ma amoon juróom yu mel ni sama doom jooju Chérif Ibrahima dootuma jaar Dakar loolu seddul xol su ma doon def mbann baraj ci moom ndax ndax eh, million yam may jox duma ko am duma ko am jamais te dinaa leen wax lu tax Cerno Yaxya Ali moo ma nett li neen sëy Tayib 47 1947 bi mu fiy ñëw nee na bi mu ñëwee bay ñibbi Chérif dafa dafa woo doomam yi ne leen maa ngi leen di dënk su dee da ngeen bëgg lu ngeen di ñaanloo yàlla na ngeen dem ci ku ñuy wax Cerno Yaxya Li mu ne su ngeen bëggee lu leen lu ngeen ku leen dimbale ci xaalis dem leen ca Baay Xalifa Ñas su ngeen bëggee ku leen dimbale ci wàllu yàlla dem leen Tiwaawoon ca Serigne Babacar si wala su ngeen bëggee ku leen ñaanal yàlla dem leen ci Cerno Yaxya Li te maa ngi leen di dënk bu leen lekk ci xaalisu Cerno Yaxya Li ndax daf leen di lor ndax cëram ci yàlla bu la joxee xaalis daf lay lor Cerno Yaxya moom ko nettali kon sëñ waxuma ne xam naa ba sëñ Mansour damay bañ nit ñi interpréter waaye sëñ Mansour yeggoon na foofu ci yàlla dafa am ñoo xam ne bu ñu lay jox dafa lay lor yaa leen war a jox da nga war a xàmmee ñi nga war a jox ak ñi la war a jox soo leen xàmmeewul da ngay lor am na koo xam ne boo lekkee xaalisam dootoo ko dolli yow yaa ko war a jox ndax martabaam sëñ Mansour foofu la toll woon ci yàlla moo tax bi ma xamee loolu man ma lank waaye teewul wax na ko imaam Lamine Sakho dem leen ngeen laaj imaam Lamine Sakho lii kañ imaam Lamine Sakho ngi fii di dund dem leen ngeen laaj ko mu ngi mooy jiite jumaam ji ci kon li may wax xam naa ko ci gàttal sëriñ Mansour lu ne def na ko fii sayit bii may wax xam na ci lu bari li ci mujj gi li ci ëpp sama digganteeg moom sayit fii ci golf moo ko daan dox yooyu sama digganteeg sëriñ Mansour la dimbale na ma ci wàllu yàlla ba tey boo demee ne shérif na def lii na def lii am na yoo xam ne nag duma ko tudd du ko kenn du ko tudd ndax yaag moom ak yàlla la ba sëriñ Mansour mosul génn nii sëriñ si di génne waxuma nag sëriñ si dañuy génn di uti àddiya de waxuma loolu de waaye daal sëriñ saa ngi dem moom fi mu ne li sëriñ si di tiitaroo mooy bon j'étais en Paris je viens de la France bon, je, de toute façon euh, bon demain je dois voyager à Bruxelles bon de toute façon moom mosul xàmmee pare Tiwaawan moom yoonu Tiwaawan a ko gënal ba benn bés nee mu bind benn xasida ci ci ci ndakaaru ndakaar xayrul xure ba xasida bi jeex nee na ma ñëw jàngal ko Serigne Babacar mu ne Serigne Babacar ne ma Mansour yow sa yaram neex na waaw mu ne ma sa dëkku maam alaaji Malick bii bu ko gën am na da nga naan ndakaaru xayru xure mu ne ko ah papa dama gis yow balaa dara di sotti nga ne ma dem ndakaar te ñëw di mu ne ko wax nga dëgg <laughs> mu ne sëñ Babacar ne ko wax nga dëgg mu ne te dama gis boo jógee Dakar lépp faju <laughs> mu ne moo lay won ne moom ku teel a yeewu la moo la gisal kër yi mu am Dakar ak point yi mu ko am moo lay wan ne sëriñ bu yeewu la te génnul xamoo génn taxu la yeewu xoolal kër yi mu am Dakar ak fi mu ko am xoolal ba ca jëppal ba mu koy am kañ la woon boobu ñépp a soxla biir kër Dakar mu am ko ca jëppal am na ku may nettali mu ngi Bruxelles laa ko fekk soxnaam ñëw na fi sama yoon bii rek ñëw nañ ci tudd it waay waay waay lu ma dal mook Pape Fall ñoo ànd xëy na ma fàttaliku tur bi bi may tudd Paris jógee nañ Bruxelles ñëw ci moom fii masjidu rasul nekk tey Daouda fii masjidu rasul nekk fa la daan teg ay chaise di louer nee na parce que boobu foofu eh, mo eh, centre dakaar la kuy romb di nga ko gis nee na benn commissaire di romb ni ku moom siège yële ñuy luye mu ne dem leen wool ma ko nee na mu ñëw mu ne ko yow yaa moom siège yi di luye mu ne ko waaw mu ne ko xamoo ne foofu duñ duñ fa teg chaise di ko luye mu ne ko ah man dama gis ne moo gën mu ne ko bu ma la fa fekk damay dem benn patrouille bu ma roj wëññeekoo bu ma la fi fekk nee na fa sëñ Mansour di dugg si ci kër nee na ma dugg nuyu ko wax ko li na ko man kat fii lay jaayee seize yi laay rek benn commissaire romb na fi ne fii kenn waru fi teg seize mu ne ko moo ko moom da ko moom jox ma kayit mais mu jox ko kayit mu bind ci Mouhamadul Mansour borom daara yi ak numéro téléphone am jox ko ko ne ko bu commissaire bi ñëwee jox ko ko <laughs> moo ma nettali ci gémmiñam de nee na mu ne commissaire bi ñëw ne ma mais comment yow waxuma la woon bu fi mu ne ko kii de kii borom kër gi moom ma wax ne naa la nee na mu liir ko ne ko waaw waaw baax na baax na baax <laughs> nee na fa laa continuer di louer samay chaise mu ne ci la ko bu sëñ Mansour wax ne ko fii jàkkaay fii mujj te boobu Alaaji Abdou Aziz jëndagu ko muy muy muy masjidu rasul bii tey mu ne sëriñ Mansour ci la ko waxoon ne ko fii de xaw ma lan waaye jàkkaa fii mujj gannaaw li la ko Alaaji Abdou jënd def fa masjidu rasul bii tey fa tabaarakallaahu sëriñ Mansour ku yàlla baaxal la muy stratege du noon ngeen koy waxee daaw da stratégie la woon ndax li lay won ne stratégie pire la kër yi mu am Dakar ak fi mu ko am jumaa yi mu am Dakar ak fi ko am xoolal bii ci golf xoolal ba ca Pikine xoolal ba ca Almadi moo tax ku fi tiitaroo jumaa ki jàkka <laughs> sëñ Mansour li mu fi tabax ci jumaa ki jàkka waxuma yosi boppam waaye yi mu dugal alalam boo xam ne moo defar jàkka ja kenn xamut nu mu toll xoolal rek ci point yi ma leen wax tey bu doon alal rek nga bëgg a jaay këram gii ci golf ñaata million la ba ca almadi nag ba ca biyaa gi ba ca biir Dakar ba ca VDM ba ca pikin ak feneen ak feneen ak feneen dafa teel a xam ne àddina fii lay mujj mu jiitu ko fa yàlla tàggat àddina yi teg ci loxoom te gisu ko sëriñ Mansour milliard ak mille francs la yemale xàmmeewu leen dangay ngay ñëw toog mu maye lim yor ba mu jeex daawre loo yor loo yor génneel génneel génneel jox ma jox ma jox ma jox nga jox ko mu jox kii léeg mu nga jox ko dara mu ne ma ne génneel bi ci poos bii laa wax bii ah. nga génnee jox ko balaa ngaa dem ñaar mooy am dana la jox lu faj sa aajo yow wala boo demee di nga am lu la bett kum ko ma sa def rek boo demee di nga am lu la bett wala balaa ngaa dem moom dina làmb poosam jox la loo xam ne wóor na la wóor yàlla moo ëpp li nga joxe yow mbooloo yi ko daan wër yépp foo dégg sëñ ma maa ko njëkk a defal gàmmu kër Musa Jom Njaga ànd ak Malick sàll mii ci daara ji bi may tudd keroog Malick la doon jooy xaj man mii maa njëkk gàmmul Jom Njaga kër Musa def naa ko ñetti at door ko bàyyi yàlla def Jóob Njaga moo ma nettali ci gémmiñam ne ma mbooro laa nekk di liggéey di jaamu yàlla di liggéey di jaamu yàlla ba guddi mu ne ma xaadir laa woon it nag Jóob Njaga moo ma nettali ci gémmiñam mu ne ma xaadir laa woon maam bu mooy sama sëriñ maam bu bi gaañu nii mu ne ba bés guddi mu am lu ma feeñu ne ma wooteel nee na ma xëy jubali ci sëñ Mansour ne ko am na lu ma feeñu de léegi am naa tarixa sëñ Mansour mu ne sëñ Mansour ne ko jóob teel na di tarixa jóob tarixa teel na ci yow de mu ne ko am naa ñëpp waaw <laughs> lay wan sëriñ Mansour ku dal la mu ne sëriñ Mansour ne jóob luy sa charte tarixa xoolal fi mu ko jaar jóob luy sa charte tarixa mu ne ko lu yomb la jooba may nettali de lu yomb la mu ne ko lan la mu ne ko liggéey bañ a yàq jaamu yàlla bañ a fen dundee sa ñaq koo tane dimbale ko ku la tane dimbale la jaamu yàlla bañ a fo boo ci nekkee boo ëllëgee jóob xamula xamoo ko <laughs> mu ne sëñ Mansour ne ko maa njëkk a bokk <laughs> moo tax nga dégg mu naan mu daan wax ne sama premier taalibe ca Mboro mooy Serigne Mansour waaye wax ja la ma ci itel ci la daan wax mu ne joom mu ne sëñ comme taalibe bu toll ni borom daara ji ak maam faama bu Serigne Abdou Al Amin mu ne ñaar ñii laa njëkk am ci taalibe mu ne moo tax maam faama bi mu ñëwee lu ci man maam faama ak soxna may Mbàkke bu sëñ Abdou Lahad tase naa fa ak ñoom ba tàyyi kër Musa dañ ko daan dimbale ndeysaan di indi ay ceeb ay déwlin yépp ci gàmmoom gi yàlla def maam faama da ko daan dimbale waaye xam nga jóob dafa neex maam faama ne ko man daal bu ma sañoon nga ñëw seet si sama papa ndax wax naa ko say mbir ne ko ku baax nga mu ne ko ah loolu nag du yomb ndax xam nga sa papa daa aju ca kow mooy étage ba di man maa ngi ci suuf ne ko mu yolomal ma yolomal ñu gise waaye bu teengalee ma teengal duñ gisee ndax moom du wàcc te man du ma yéeg mag ñi rekk a baax ndeysaan bëgg defee sëñ Abdou Lamine xaalis bu bari lay jël jox maam faama ak euh, borom këram bale ndeysaan kii aleloo alal ju bari lañ koy jël mu jox Jóob Njaga Jóob Njaga loo ko jox na mu yóbbu ci armeel ya miiree ko ko defar armeel yi bi armeel yi ne képp ba nekk benn bunt mu dem songu jumaa ja bi jumaa ji jeexee ban yoo gisoon diggante Tiwaawoon ba Cees ban bi mbedd yooyu moo ko fa tabax fa tabaarakallaahu mu ne ma sëñ Mansour jig na ma nag Jóob Njaga ko mu ne ma daf ma ne Jóob woote dafa diis bàyyil ma dimbale la ma ne ko ah tey sëriñ mën naa di taalibe mën naa dimbale sëriñam nee na mu ne ma da ngay dem ci mbeddi juróom-ñaari mbedd ci xombal nga jonkon fa jàng na ngam waxuma lan la nag waaye mu ne sëñ Mansour ko ko wax nga jàng na ñàngam cof ci suuf si boole juróom-ñaari suuf yi indil ma nee na ma def noonu yépp indil ko nee na mu ne nga nam nga ne ci tëf ne ma di nga am mbooloo di nga am xaalis di nga am yàlla mu ne ma yépp dajee na nag ay dara mu ne ma ay dara yépp daje na ci man waaw Diop Ndiaga gis ngeen ko mu gi foo tourné ci Sénégal Diop Ndiaga Diop Ndiaga mu ne ma sëñ Mansour ma ko defal nag waaye sama taalibe la <laughs> sama waa kër yëpp xam Diop Ndiaga fa tabarakallahu pour wan la ne moom ki kawe ak ki suufe li muy def ñépp la koy defal même point d'égalité sëñ Mansour mu ngi jëkk a génnee nag maa ngi jeexal tukki mësul tukki sëriñ Cheikh mos nay wax ci benn waxtaanam ci kër jëmb mu ne li lay wan ne sëriñ Mansour borom xol bu féex la sëriñ Cheikh a ko ko seddeel de mu ne jamono bi tiwaawoon léjee moom rek moo daan ayee ji kër turandóoram fa reeree fa jàngee fa ci turandoom gàdduwaat saagam ñëw ci kër sëñ Babacar moom rek a ko amoon mu ne te kenn mësul dégg sëriñ Mansour wax bu ñaaw jëmale ko ci nit ci kër gi loolu kenn mësu ko dégg sëriñ Cheikh a ko ko seedeel te yaakaar naa kenn mësu ko déggit nag li tiwaawoon di rëb rëb rëb rëb kenn mësul dégg sëriñ Cheikh sëriñ Mansour nga ne moo wax diw nangam te loolu am tuuti ñagas-ñagas amut du ci murit du ci xaadir nag boole ci moom daal sama maam ne pare na ci moom moom bu ne maamoom rek balaxal madaa te mooy dëgg nag moom yoonam newul ci leneen sama maam nee rek pare na ci xol bu féex boobu mu amoon xalbu salim sëriñ Cheikh ku ko njëkk a seddeel